mbooloo mi sëriñ bi ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ne mi ngi leen di delloo nuyoo bu baax a baax ne mi ngi jégalu nag ci jataay bu xat bi ne fii ngeen nekk tàng na lool ndax xataay bi moom waaye lépp nag ne bisub sëriñ Tuubaa bi rekk ko waral te sëriñ bi ne bis bi nag cosaan la ab coono la woon akum nattu ak fitna kon buñ demee ba pay gi yegsi lépp ànd ak jàmm ak xéewal ne loo ca daj rek ne delloo ko ca foofa ne dégg nañu kàddu yi bu baaxa baax sëriñ bi mu ngi leen di nuyu yéen ñi fi teew yëpp ne du nuyu doomam ji di biraan di ko yóbbante ci waajuram am nuyoo bu baax a baax ak cant ak ngërëm ak mboolem ñu màndal ñëpp ginnaaw bu limee day juum waaye ñu ngi tudd Alaaji Asan Géey ne yàlla def na xam na ko bu yàgg ne yàgg na lool waaye nit ku baax la di nuyu Abdou Aziz Mbay mi nee xarit moom itam taxawaayam ci Tiwaawoon ne ñëpp nañ ko mooy mooy taxawaayam ci Touba rek nuyu Serigne Mamor Mbakke ne ni ma présenté doy na secret nuyu Jili Ñang di nuyu ñu ci des ñëpp daal bu limee day juum. waaye bu tuddee seen kilifa rek ne lépp tabbi na ca biir ala jafe toogal ne kum ci tudd itam xamal ni tudd na la rafet lu seenub liggéey ci màggal gi màggalu Tuubaa gi ndax at mu jot ngeen def ci yitte ju kawe ba ñu jàpp ni lii kenn mënu ko woon bu déwénee ngeen yokkaat ne lool nag lu rafet la waaye xam nañ ni ñi ko jiite seenu bëgg-bëgg ci dëkk bi ak ci yoon wi lool rekk la ñuy seere moo ne Cheikh Madul Bachir nee nag moom diggam ak yéen nee dafa yàgg nee ba yàlla defee autorisation télévision bi jafe 2008 nee loolu ëpp de du benn bis ne Cheikh Mamadou Lamine bara, bobu moy xalif général de Mouride moko yoni ci president Abdoulaye wad wax ko ay kaddu lu jëm ci lolu ma dem fa mu wax ko yu bare bare yi taxone munu ko def te lu ci ne na ngant ci mom waye mu ni ko sëriñ Baara daal nee ko man daal Ablaye Wade wër sëriñ bi wër maa ñaan dara ma di ko gàntu dinaa gëm rek def ko xam naa baaxul ci man sax waaye dinaa ko def moo yàgg gëm nee wax yu bari nag la ko waxoon booba yoo xam ne laajut ñu di ko waxaat fii kon yàlla def na bu ngeen gisee kër ba mu bee yuusu moom la ci jëkk a gërëm ne looloo ko a waraloon ne alaaji Mansour Mbaye xam na ci lu bari kon sama digg ak yéen du démb du tey waaye démb la waaye boobu ba nëgë ni nag lépp lu xew ci yoonu murit ne du ngeen ci xaar kenn du ngeen ca fayu dara lépp da ngeen koy def ngir yàlla ak jëmi sëñ Tuubaa loolu nag sëriñ Touba mi ngeen koy defal am nag pay ne 2012 itam masaalikal jinaan booba jumaa ji yëggagut yéena fa njëkk a def deret ci julli ga ne loolu lépp nag ab cër la màggal gi itam daaw ñu bari ñemewuñu woon télévision yu bari dañ doon xaw a sax wër di nëbb la ñuy def ndax fi réew mi toll waaye yéen seen fit ak seen bëgg sëriñ Touba da ngeen a gën a engagé daaw moo tax na seenum xel dal bu baax te xam ni loolu defalu leen ko defalu leen ko taalibe yi ne sëriñ Touba ngeen ko defal ne sëriñ Touba nag da daa am suñu kilifa gu baax gu daa wax ni lépp sëñ Bamba xar baax la

moo tax sunu borom wax ci alxuraan ni maa kaana allaahu da koy waxaat ci olof ah sëñ bi ne li mu waxoon léegi ci aaya bi ne yàlla ne dama leen di seetlu waye duma len won ni nak dama len di seral. waaye duma leen wan ne nag dama leen di bi li ko jóg damay xool ba xam yéen seen ngëm deuguna na wala gëmul. loolu la laa def ci xare yi. ne lolou sax la def ci xare yi. laa tanfiru fil harri qul naaru jahannama ashaddu harran. kon loolu. nee kon loolu. ki gëm. ki gëm. fa ko teg. fa ko teg. ba tax du ko wàññi dara. ba tax du ko wàññi dara. nee ka ca bu ko jéemee rekk du sotti bu ko jéemee roy du sotti ndax eh, Cheikh Madul Bachir ne yéen daal xam ngeen ni ca jamonoy Serigne Touba ne bi Serigne bi nekk ci yéen te booba dañuy daw sëñ ba eh mbooloo mi ngeen déglu Serigne bay wax ngeen déglu lu ngeen di wax Serigne bi wax ngeen di la sotti. ne booba dañuy daw sëñ Bamba kenn du ko jege. ndax ndax ndax ndax tubaab yi. ne yi. booba condition yi ñu tëral. booba tubaab yi kat condition yi ñu tëral. bala faa kenn dem. bala faa kenn dem. da ngay ñaan autorisation balaa kenn dem Serigne Touba. te nanguwuñu ñu fekkente fa. lépp ngir bëgg fay mission. nee lépp nag ngir bëgg a fay mission Serigne Touba. nga ngeen xool nag yéen booba ak tey. mat na téeméeri at. mat na téeméeri at. ndax loolu 1906 la woon. nee loolu 1906 la woon. 6 wala 8. téeméeri at yi kon tegal na. nee téeméeri at yi kon tegal na. nga xool ña doon jàmmaarloo sëñ bi. nga xool ña doon jàmmaarloo Xaadimu Rasuul. kenn tuddatu leen. kenn kenn wootu leen. kenn tuddatu leen. kenn tuddatu leen. kenn xamatul fañ ne. ñu xool nag wooteeb Sëriñ Tuubaa bii. mu toll tey. fi mu toll tey. loolu nag kuy xalaat ni. loolu nag kuy xalaat ni. ay xalaat. ay xalaat. wala ay wax. ay wala ay wax. wala ay pexe. wala ay pexe. mën na caa jeexital. mën na caa jeexital. kon jëfandikoo sa. nee jëfandikoo sa mbokk. jëfandikoo sa mbokk. nee jëfandikoo sa xel. ndax tubaab yi. ndax tubaab yi. lépp lu ñu mën. lépp lu ñu mën. ci xalaat. ci xalaat. ci soppi xel nit ñi. yàq image yu yoonu murit. duñ julli. duñ woor. seen dëkk ba ak kaaba la. seen dëkk ba ak kaaba la. dañoo am seen sam-samu bopp. seen màggal gi mooy seen aj makka. seen màggal gi mooy seen aj makka. te murit yëppay dem makka. kon la ñuy wax dara mu ca. waaye yooyu yëpp nag li taxoon ñu di ko wax. bëgg. imaasu yoonu murit yàqu ci biti. moo tax mun leen màggal gi. ren bi màggal gi yegsee. bi muy dajee comité bi da leen ni communication yëpp yi jëritu ko ndax màggal gi moo wooteel boppam nit ñee ko wisil seen bopp lu weesu bi sàngam la daal doy na sëg bu ñu defaloon benn conférence du jeexital ci ñi ñëw dara du yokk seen ngëm du ca wàññi dara loolu moom sëñ Tuubaa ne suñu borom ak ko defal de kon yéen waa TFM bu ngeen amee tawféex di am jot lu ngeen ci def ngeen yokk ko li fee yéen koy def nag ngeen xam seen télé bi ca kanam la jëm lu ngeen ko gën a jiitale daal sëñ borom jiital leen ndax yàlla jiital sëriñ bi moom waxal na boppam yàllaa ko yëkkati te kenn mënu koo suufeel képp ku ko bëgg a suufeel nag yow la yàlla suufeel kon nag foofu rek lañ ne jërë ngeen jëf sëriñ bi ma leeral la sa doom jii di Abdou Ndiaye Abdou Ndiaye mii bàyyam ci kër Cheikh Abdou Khadir la nekkoon waaye Abdou Ndiaye mii boolewul dara ak Youssou Ndour gëm na ko moo moo sëriñ bi ne moom dooy ba dañ laa jege nee moom ndoy baan ak ñi si ndax ndoy baan nag moom day sëriñ bi sëriñ bi moom waaye abdou mii nag ci sa keppaar la yoro waaye dafa téye Youssou Ndour te dëng dëngiwul kon Mbàkke moom itam ñu sant ko te gërëm ko ngeen tàllal nag nee sëriñ bi ne rekkee Abdou Ndiaye mii moo nekk ci daaraam daara ji ci Kolobaan Mbàkke xam nga lii nag lii ne am na fa ñaar fukki at lii nag sa baay ko man moo teg loxoom ci sama bopp ni ma bëgguma nga liir bëgguma nga jàng naa la defal ikmatu loo dégg xam ko moo tax ma waaye lu ngeen wax ma jottali